Mar Mar Yasin, por favor, por favor. yàlla rek daf leen ko nag maaleykum salaam papa daf leen ko nag rek may leen ko daf leen ko nag toogal papa arrière leen tuuti rek. Zimo Zimo ñëwal leen. Amad ansal micro. Amad ansal micro. Jimo. Jimo ka fi yow micro quoi. Grand do kini. Jimo. gars yi. waaw. naam espace waay tuuti rek. waaw alors messieurs dames très chers internautes yi fi nekk yëpp différentes plateformes digitales yi moo xam ne Feeling Dakar Univers Info Yacine TV ak euh, Sans Limite TV c'est un immense plaisir am Wally Ballago Seck le conducteur de la waaye il s'est dit ni yi nga xam ni ay doomam ñoom ñoo ko ubbi te moom moo leen soutenir su ma juumul interview moom mujjee def ak waa Jimo il moo dit que ni Wally dañuy dañoo ñëw sa kër historique bu moom mooy dañoo ñëw sa kër nga leen waa yéen nga leen proposé ci kii bi daal leen maa ngi leen nuyu di di ziar ñëpp di wax bonne année à tout le Sénégal à tous les Faramareen di wax merci beaucoup d'être ah, merci beaucoup pour leur soutien maa ngi nuyu suñu yaay bi yaay Jumo Afia di nuyu ñoom Jumo Afia aussi ah euh, c'est tout à fait normal ay xale la ñu nekk ci wàllu di di ma bëccëgal ah weesoo seen euh, côté. influenceur bi ñuy def war nañu am benn liggéey bu ñu xëy mis à part loo xamante ni bokkul ak Wally yàqul leen dara donc c' était un rek bu ñu def pour ñoom c' est tout à fait normal alors que ni ma koy defee ci dem ci beneen boutique ñu ma ko waxee rek euh, yàlla dogal na dama am rak bu baax bu ñu wax Mortala chéri aljana di suma rak moom tamit bi ma ko jàppalee ba mu tegu ci yoon jàppale na ndaw yu bare bare ñu tegu ci yoon maa ko ci gërëm bu baax a baax référence la ci xale yi képp kuy jaay nekk ci boutique moo tax la référence la ci yow te lii rek laa ci bëggoon léegi ñoom tamit ñu ngi ñaan ñoom Jumo Afia ñu dem ba nekk référence tamit ci yeneen ñi ndaw bu sob yàlla yàlla def mu am yeneen i boutique ak yeneen yeneen ndax euh, compte boo gis wàññi boo gis ci benn lay tàmbale donc c'est juste ça je suis venu apporter mon soutien waxoon naa leen promettre man maa dinaa fi ñëw malheureusement ubbi bi dafa fekk ma jàpp xat loolu donc ma am tey temps ma ne ma ñëw fii jaar leen wax leen ni vraiment yëg naa lii am naa ci contentement. d' accord offre emploi amatul ci réew mi bëreetul bu gis waa ñu ngi ci ñu ngi jox jéego bu am solo ndaw ñu ko wër ñu ngi leen di jox emploi def nga ko ci ñeneen ñoom bi ma leen di jëlal bi wax ngay def ci suuf ci emploi moo gën fës ñoom peut être dañuy ñëw ci réseau di ko wax mais ngay defal nit ñi ci emploi moo gën a fës ñoom li ñu li wax. Wally ak jeunesse bi ak emploi li ñu la bëggee noonu nga amul loo leen faye nga ne naa ko delloo ci ay offre ay emploi wala yow bi ak di jox liggéey naka la ah, laa ko defal parce que kenn xamul ki lay jëriñ ëllëg loolu ko defal parce que toog ba tey nit ñëw ne ko yaa ma fayaloon temps ma jàng léegi lii laa doon gis naa ci ay nit am naa ci ku ci mel ni Abdou Khadir dañoo daje mu nekk jaaykatu portable ne ma dama bëgg tukki ma xool ko mu wax li ñu dëggu ci moom mu jël passeport am bi jëntil ko mu dem chaque weer ndeysaan mu néew mu bare dina yónnee koppar ne pour ma def ko ci man loolu c'est c'est c'est important maanaam Abdou Khadre fay na ma bor bu yàgg léegi kay maa donc àdduna noonu lay demee euh, jàppalante la rek. ñoom ay faramaare lañ wala <laughs> <laughs> ah, ah, ah, waaw mais Fara Cekkee c'est un ak qui l'a créé koy wax Mara moo koy nuyu de passage di jàmm ak wér-gu-yaram ñun ñëpp ay Fara Mara lañ ñëpp ay Fara Mara lañ interview bi dafa defoon tollé bi ñu bi ñu waxee que ni dina leen joxe chèque man sax maa leen commencé naa leen chèque bi cinquante millions la ak trente millions mais ñoom waxul sax ñu ñu ñu toll mais d'une manière générale daal sénégalais yi ñu bëri ñu doon ñu doon bind ci commentaire bi wax naan boutique bu cinquante millions la wala boutique bu trente millions la wala ñu ngi jàppale doomam yi boutique bi li mu toll ci dayo ñi ko gën a fort hmm. euh, donc euh, euh, ak lu mën a xew rek ñoom tàmbali nañu waaw tàmbali nag moo moo jiitu lépp yàlla na yàlla teg loxo yàlla wéral leen yàlla sàmm leen ba ñoom ñu créer yeneen jumeau affaire pourquoi pas wala wala def ak yu baax yi sa papa gis waal yi day fekk nit xam ne dafay waa ji noonu la toll. sa tolluwaay moo moo demee noonu. waa noonu la toll tegu ko sama bopp yàlla moo ko def. Oh. bi secret bi ci waa ji ku rek mooy loolu. wala waa ji mu laal wala ku mu wëy macha allah. waaw mais xam nga loolu euh, man li may wax rek mooy euh, la propriété buñ koy wax set. Mm-hmm. bu ñu wax set du ci solu wala nga xeeñ lu neex non non non. set ci xol la ah donc quand le cœur est propre ah quand quand le cœur est propre euh, ci teg yàlla mën na ci def barke waaw te xol bu set moom yàlla koy maye donc tànneef la bu ma bokkee ci ñu ko defal nag te mu xam ko gëm ko am ah, ma koy sante moom la rek macha ah. loo leen di wax ñoom itam ñoom ñi nga xam ne tey recevoir nga leen euh, plutôt ñoom ñoo la recevoir ci boutique bi je pense que am nga loo leen mën a wax itam pour ñu gën cee bàyyi xel dara dara duma leen ko wax. parce que parce que li ma yaakaaroon ci ñoom tàmbali nañ ko nit nenoo ci nit ba taay damaa bëgg tàmbali nga jox ko taxul mu tàmbale. dara ñii kon dañ leen ñaanal rek ñoom ci li ñu ne xam nañ ko xam nañ dañ leen yónni yàkkam ci leen xam nañ ne am nañ waajur yu ñu war a toppatoo war nañ ma léegi seen sœur ak seen frère donc ils n'ont qu'à faire ce qu'ils te ñu ngi ci. wala ban observation nga am. am na ñu bëri ñu réclamé que ni Wally xajatul ay espace yi fi nekk euh, ak aussi bi nga bi nga ci seen bi gis fépp fees am ñoo xam ne sax amu ca leen téye ñu réservé woon nañ table sax ñu am accès ci seen table yóbbu Wally ak Baldé Faramareen est ce que jotul yow staff bi ngeen jël décision que ni xam ni xajatoo leen ci salle nekk fii ci biir Dakar pourquoi pas Arena pourquoi pas yenn stade yu mag yi. li ma la wax rek wàññi boo gis euh, ci benn la commencé euh, esplanade xaj nañ ah mais xaj nañ fa am yëpp waaye ah non xaj nañ fa xam nga rek ni ah, mu dem am na ñoo xam ne dugul ba ñu <laughs> waaw mais loolu mooy naa koo xam ne table la am mais loolu mooy xoromu saare bi <laughs> xaj nañ fa de loolu mooy xoromu saare bi ça dépend ci bés bi rek waali moo ñamul stade yi wala ñun bëgg nañ gis waali arena wala waali ah, stade waay waat ah, waaw li nga wax ni xam nga yow gëmoo ko <laughs> gëm naa ko de barki maam Seera Fall gëm naa waaw kaay do kaay maam Seera Fall waaw xaaral xaaral xaaral waali ñemewul loolu moom gëmoo ko waaw ah gëmoo mais du tax doo fay dem waaw non dégg mooy dégg rek ok bi ma leen di jëlal Bercy en 2016 je l'ai pris en deux mois ñaan dafa dof ñaan dafa wérul ñaan day xaru euh, je pense que Wally moom jël na salle bi moom ñu naan kawteef loolu du gule donc loolu du problème aw ma problème boobu mais aussi il faut ngeen comprendre ni arena problème defam am problème accès waaw suma waajur bu góor bi mu ko defee Youssou Ndour ma ko nuyu de passage parce que moo ko ubbi bi mu ko defee am na ñoo xamante ni neuf heures la ñibbi seen kër dafa am problème accès ak lu mu mën a métti métti métti grand théâtre moo tane parce que balaa sept heures du matin di nga sa six heures du matin mais am na jur bu mu tegee foofu moom am na ñoo xamante ni neuf heures ñii dix heures la ñibbi seen kër yi moom sax wax na ko donc dafa am problème accès donc day gën a nekk coono ci gars yi à vouloir faire a à à vouloir euh, faire et gagner beaucoup d'argent aussi day gën a métti coono ah, Faramareen waaw. buñ ko guddal ak philosophie bi nga xam ne moom la am maanaam euh, malgré lu histoire ak wala lu wax bari bari bari il ne sort lan laay wax. Oh, ah, comme mu bëri wax mais jamais Wally bi. non c'est comme ça c'est comme ça la meilleure réponse c'est le silence. et euh, la meilleure solution c'est le silence ah, parce que chaque fois di nga wax même en voulant euh, éclaircir certaines choses da ngay mujj lëndëmal et je préfère euh, bàyyi noonu. ok day fekk benn kër guy dox sax mu tas ko ak ñan ngay wax parce que tamit tas nga fa la de nañ ko <laughs> gudd fan ak wér rek nan lay ñaanal yàlla defal la jàmm nga yegg a yegg barke yàlla teg bu kenn mën ci yow dara te kenn du mën ci yow dara ndax da nga ba la ñu bëggoon ma ne

foo mën a tolloo doy lool laa ana si